Bonacéry sopp Serigne Fallou boulangerie séri sopp Serigne falu nekk ci are ci route allié bi di defar mboolem xeetu mburu yi mburu normal am na baguette am na pain au am na leen am na croissant sax dañu koy defar yéen ñi bëgg mburu moo xam abonnement wala événement ku bëgg a bindu ñu jël ko yët bés bu set weer wu ne nga fay événement maanaam xew woo mën a am boo jokkook ñun def sa commande danañu ko traité yónnee la ko ca na mu gën a gaaw waaw waaw boulangerie sopp Serigne Fallou nekk ci are bi ci route allié bi danañu def defar mburu normal baguette madeleine croissant ak lépp lu jëm ci xeetu mburu la ca gën a neex am ñu poulailler bu mag a mag quantité boo mën a soxla ci ay ganaar foo mën a nekk ci biir dëkk bi poulailler baa ngoog ginaar yu mag ànd ak wér gi yaram ñu di leen toppatoo ñuy jëfandiku bu baax di xool seenu dund seen wér gi yaram danañu la jaay defaral la ko indil la ko ak foo mën a nekk ci biir dëkk bi danga cee bëgg ay leeral moo xam mburu mi wala ginaar yi jokkool ak ci numéro bii 78 470 70 79 80 wala 76 475 41 30 bu la séeri sopp Serigne Fallou ak poulailler Lamp Fall ñooy ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te koor gi seen dund day neex